waaw can li ci boppam nangu nañu leble ko nangu nañu def ci avance nangu nañu teewal ko lépp mais kon kon nag canu immatériel lan lay doon mooy am na jigéen boo xam man kii nañ ma ko may rek moom doy na ma can bàyyi naa sama can donc luñ sañ a bàyyi la waaye kenn rek ko mën a bàyyi buñ ko bàyyee rek dafay mel ni jël nañ ko dispense la bu ñu la dispensé ci kayit wi ça veut pas dire que kayit gi waru fee ne mais dispense la dañ la ci joyal ne na noo ko defee baax na moom cosaan loolu moom euh, kii boobu euh, li nga xam ne moom mooy can mën na nekk xam-xam seen kanam fii maye naa sama doom bal sax moom moo maye boppam parce que am na âge ba moom moo toog jëkkër ji toog ne ko maa ngi lay ñaan ci suru kooku tontu ne na ko fas naa yéen sëyal la yéen ñëpp gis ngeen ko à la télé ngi ci réseau yi loolu model la ci charia euh, euh, docteur ni ngay euh, faralee di définir diine danga koy faral sax di wax ci sa ay kàddu que diine ji mettiwul mais nit ñi ñoo ko bëgg a mettil ak ay explication quand même yu xel mën a nangu mais li ci suñu problème rek mooy pour la plupart du temps yow rek ya ci dang ci ciy wéet prêcheurs en en général duñuy faral di partager euh, li nga xamanteni mom ngay faral di wax lolu itam euh, lan lañ ci mëna déduire. waaw ubbeeku ma laaj yi parce que dafa may perturber ci téere yoo xam ne maa ngi dajale sama bopp di ko mhm. waaye mën nañu xam ne il y a dans les prêcheurs il y a 80% qui sont pour des raisons pécuniaires comme loolu ci olof laa ko wax. ma ne bëri na waarekat woo xam ne bi mu ñëw indiwul dara te bëgg na lu mu yóbbaale kon wax ju mu wax amaana bëgg lu mu yóbbaale ci kër ga nga xam ne moom dafa presque daf ko def su contraint dana ci am hmm. mais l'essentiel pour que ñu bañ a perdre le fil d'Ariane parce que li yëpp naa ko tëb rek ne doomi njaaloo li ñu tuddee doomi njaaloo Sénégal dana donn liñ koy tuddee doonu ko sax parce que boo wëlbatikoo <coughs> ne njaaloo mooy lan bi ci njëkk mooy jigéen ji nga xam ne jeeg la mi ci bu mu sëy mu dem tëdd keneen mais pourtant ci sharia mën ngaa ëmbal jabari jàmbur bés ba jot nga ñëw jëkkëram ubbi la bunt bi nga tudd sa doom boo koy jël yóbbu nga jël yóbbu waaye waxaat ko ma dégg hmm. du waxaat mu ngi ci enregistrement bi xam damay bëgg damay bëgg damay bëgg génn nañ sànq ci politique fi mu toll nii dañuy waxee loo xamante ni xam la bés la boo xam ne tey damay bëgg ñu jariñu nga xamante ne ah, question yi xam naa loolu mais loolu boo ko ah. bëggee da nga may bàyyi ma wax. ah moo tax nag ma bëgg tey comme ça muy leer xam nga lu. waaw demal demal demal ma ne. waaw demal demal. mais nee na faaw may am ay ñu ne non non ah. bàyyi leen affaire bàyyi leen ko. parce que hmm. bu ma leen dalee tàkkale. du ngeen fi du ngeen fi jóg. tey moom bisu jàng la waaye déglu ma wala ma jóg dem. kon nañu waaw ma. ayca. ñu ngi lay déglu docteur téere yëpp mi ngi ci fu ñu waxee ne jabaru jàmbur boo xam ne euh, am na ku ko ëmbal kookaay ñëw ngénte doom li doom ji te kooko lay doon ci biir daara yi sëñ borom daara ji daan na ko jàngale muy lim daan tuddee shibhu shibhu moom koo koy xamul rek doo ustaas ah? Mhm. ah ah xam ah, nga yaa commencé newa waaw déedéet déedéet tur bi laa indi rek nañ dem rek maanaam mhm. une femme une marie mariée violée jigéen joo xam ne mu nga nee dem ci tool bi li liggéey toolam jëkkër mu nga itali benn waay ñëw fekk ko fa siif ko ëmb jóge ca doom ju juddu xale boobu dañ ko dañ takk yaayam ci sëy wala takkuñ ko ci sëy xam nga takkuñ sëy ba bu boobaa sharia li wax mooy doom ja day ko askanale askanalee euh, dañ ko askanalee ki nga xam ne moo ko ëmbal te du jëkkëram jigéen kenn mënu ko reprocher dara parce que dañ ko ëpp doole def ko ko doom ju juddu doom jooju juddu doom yi këdul jëkkër ja la mhm. c'est l'enfant du violeur

mu continuer am jabar am jabaram ay parenthèse la rek yu ñu ubbi yoon ci biir sëy bi loolee c'est accidentel donc force majeure la waaw doom jooju dana doon wala du doon dana doon ka violé yaayam te pourtant kooka jabari jàmbur la boobu leer na dana doon kër baayam moom dana kër baay bi ko jur maanaam le géniteur boobu. d'accord ka ko ëmbal. léegi léegi balaa donn boobu. léegi lan mooy àtte ndaw si nga xamante ni am na borom kër ba pare njaaloo balaa ñuy wax ci doom ji lan mooy àtteem ci diine. xëy noonu nga jàngee man ni ma jàngee ABCD day tabaloo rek mënoo ne A Y M. waaw mais ci moom àtte non non bàyyi. ankay waaw déedéet defal ndànk nag. Mhm. xam nga li nga wax loo ci xam benn am naa ci junni te wane wu ma ko. wér na wóor bàyyi ma ma la ma jóg dem. dama nag ma bàyyi ma wax wala ma jóg dem tànn ci benn xanaa du ma ñëw bëggoo nga naan maay naa nga man maanaam bëggoo laay ji yegg day yegg kenn du jàng faatiye nga naan ko xuloo laa waxat ca biir bàyyi loolu bàyyi leen loolu parce que yàlla daf leen nattoo euh, bu sant bu santee ñes wala mu sant neneen sow euh, nekkul fii ngeen bokk rek ñu daal ne déedéet di waxu ko wala di waxu am na fii barki démb koo xam ne ñoo wax mu bëgg a làqu daal ne Seydou Hadj malik mu ne lu Alaaji Malick xam moom daf koo xam kon cër ba mu jox alaaj Alaaji Malick dama ko jox wala sax genn wàll ga quand li may wax du waxee amee ñes te yàgg na fi du lu bees téere ma la wax am na 1400 ans ñu ngi fi yow yaa ko jàngul soo keroog bii fi xale boobu sant Sarr doon wax naan xaw ma euh, ko takk koo xam ne sa baay mos koo kii nangam nangam mais dama ko ne téere boobu nga jàng demal ci demal ci biir euh, ci explication bi mi ngi wër mbind bi ba mu ko gisee la noppi parce que itam il faut pas que nga imposé wu comme koo xam ne yow non non mais dafa ma doog ñaari yoon te loolu dafay tax ma jóg dem non non déedéet na leen na leen ma ne dama ne na leen na leen na leen bugaan réglé je suis pas pour ngay dugal ay compte non non non mënoo ma dribbler li may dama ne li may lu leer naññ la. dama la koy wax la téere wax la alxuraan indi la lépp. yow na boo attanee yow bu ba attanul fi. loolu la d'accord nee na nee na nañ ko bàyyi li mu wax ànd naa ci. Mhm. day wax ci téere bu mu ne parce que dañoo toll ci jàng ñun. Mhm. téere boobu mu wax am nañu ay ndaw sawar nañ dañuy dem. jàng benn problème damay dem papa dalay bàyyi nga yeggali. saa yoo demee. Eh, nit ñëw prôné man ba ah, amee soo waxee dama ko d'accord ma ci. non yëf yi du d'accord ci ñàkk ci d'accord. affaire bi xam-xam la téere bu ne naññi la bu leer naññi ñëpp a ko jàng. Mhm. mais lañ ciy déggee du benn. waaye yow jàng nga ABC ak ah, jàng nga ABCD je suis d'accord. Mhm. jàng nga 1 2 mhm. mais est-ce que mën ngaa lire équation. te équation alphanumérique rek kenn mënu ko def jëloo ñaar yooyu. mais jàng ABC taxul nga mën a def une équation. Euh, alphanumérique ou numérique du noonu. waaw kay boo nee waa ji équation bi ay 1 2 la te man mën naa 1 2 3 mais c'est pas comme ça man damay jël yax yi yax yi mën naa dem sax ba fa mu cosaanoo ba cosaanu cosaan la sinon da ngeen di lor ñi rek nit ñaa ngi bëgg a déglu nga ne waaye wala nangam nangam ñu ne ma non non arrêtez moi ça ça c'est théâtre que je que vous arrêtez. soo ubbee question yi tamit ñu commencé.